bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima alixwatu almustamiun alladina yastamiuna ilayna fi hada alsabax fi idaati walfajr fm 99 من سكركر دكار نحييكم wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sabah alxeyri aleykum wa ahlan wa sahlan bikum fi hada sabah كنا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا أن حياته حياة حافلة بالمزايا والمنافع وقد تكلمنا آنفا xawla bi'satihi wa xawla da'watihi as-sirriya wa da'watihi bil-jahri wa xawla islaami ba'di saxaaba ridwaanullahi alayhim فالآن نتطرق إلى الهجرة الأولى والثانية إلى الحبشة mbokk yi ñuy déglu ci suba gi ñoo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ndokkeel ndax ab jàmm nelaw la xam waaye xamut ndax dana yeewam déet xamul it na muy yeewoo yàlla mi nu may nu yeewoo kenn kenn kon bu nu yeewoo rek war nañ ko tudd te sant ko te it soo xamee ne waxtu xëy jot nag waxtu julli jaam yi jaamu yàlla yi yëpp dañu war a jóg di kër kër yi boo gisee yonent bi naan bakiro wa fil bukuri barak njëlu leen njëlu xëy teel barke yi ci bu sëri ne na woon ba mu àndeeg nit ña ñu njëlu ñooy mu nekk njëluwul buñ toggee ba jënt cinq ka njëlu woon sekk ma ngay bëgg a jeexal manding ma ak yoon wa ka njëluwut door a jóg naaj wi tàng demagul fenn nee na su boobaa xamidal mudli juuna xibba suraaxum kon ah, njëlu barke ngi ci kon nañuy teel a jóg mu ngi leen di ñaanal jàmm di sàkk yéen fu ngeen toll ngeen di ñu ñaanal jàmm yal na yàlla may ñu jàmm may ñu sutura may ñu naataange na yàlla may ñu nawet boo xam ne bu bari ndox la waaye bu am barke ak mucc te lu ci ñëwit yal na yàlla may nu nu muuroo ko te mu barkel ko yal na yàlla dimbale ñëpp jullit yi nga xam ne ñu ngi kër kër yi ñu gëm yàlla yëpp ñay bay ñay napp ñay sàmm ak ñay jaay xar yaag bëy yaag nag yaag ña ca daral baag yépp nag seen yëngu yenn yàlla barkel ko naka noonu ñuy bind ak ñay ñuy ñay tukkeeg ña toog ci kër gi yépp yenn yàlla barkel seen yëngu wante liggéeykat bi na fexe ba ñaq mooy na sonn rek coono boo xam ne mu ngi koy delloo si njariñ li ci njaboot gi ci kër gi ci mbokk yi su boobaa ci la barke bay gaaw waaye ya caaral daal te dina watt wattaaral rekk di nelaw ak di biddanti loola moom ab jullit waru koo def jullit daal xam naa ne waru koo def xam naa dara gënt dal xel mu kàllaf mu nelaw ba julli jot nga ne watt rekk di nelaw kooku dal nam xel lool yow julli yi nga julli woon xamoo ndax nangu nañ koom déet julli jotaan nga ne wàcc nga ne watt wattaaral jo jóguloo loolu wóorut yow bàkkaar yi nga amoon xamoo baal nañ la koom déet luy far bàkkaar jot muy julli nga tëdd loolu wóorut kon jullit ñi waxtu yi bu jotee ñépp nañu jóg kuy sangoog kuy jàpp ak ñëpp rek ñu julli door jëm ci kër kër yi nag noo ngi woon ci xayaatu saydina muhammadin alayhi salaatu wasalaam muy dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekk na dund boo xam ne bu fees la ak i may ak i ngëneel nekk na dundin woo xam ne wu ñu war a mën a roy la ndax gëm yàllaa nga ca coono nga ca wóolu yàllaa nga ca Euh, ci atam ñaareel ma ci atam juróomeel ma bañ yónnee yónent bi xam nga ñu ngi ko yónni woon 611 ba mu demee ba 616 te loolu mooy atam juróomeel ci bañ ko yónnee ba boobu mel na ni mbugal mii Quraysh di mbugal jullit ñi dafa yokku yónent bi ne leen na ñu ku mu neex daal nga taxu ngeen gàddaay dem Afrique xam nga Arabie Saoudite ak Afrique dañoo jege ñeente boo jàllee dex gi euh, géej gi ci la mer ci Jidda daanaka da ñëw Éthiopie dafa jege ñeente lool mu ne ñu mu neex daal ñu gàddaay dem nag Afrique ndax ñu ñuul ñooñ lekkat yéen bi gis na ne ñu maandu lañ waaye ñu jub di sañ duñu tooñ te ko fa làqu tam raw nga loolu ngëneel la bu nekkoon ci der bu ñuul xam nga ne ñoom yonent bi xamoon na ni ñu mel ba tax mu ne leen kum neex mu gàddaay dem xabas am na ñu jóg gàddaay fukki góor la woon ak ñeenti jigéen muy fukk ak ñeent ci saxaaba yi boobu yoon nag Ousmane ibnu Affan bokkoon na ca Abdourahman ibnu Awf bokkoon na ca Zubayr ibn al-Awaam bokkoon na ca ba ñu yeggee ca buuru Habasha booba ñu ngi koy tuddee Najashi buur ba nag tatagal leen bu baax teral leen foofa la ñu toog yaa ba ñu déggee nag ne lislaam a ngi gën a am doole ci mag te toog nañ fa ñetti weer ñooñu booba lañ ñëwaat dellu si mag ci waxtu woowu exactement ci waxtu woowu bi zaati bi dabt Quraysh mu ngi gën a seddali ngembam sama jàmm bi Moxtaar Sekk nee na ngembal saay-saay mu ne eh, du tas borom da koy yolomal rek mu ne bu jekk dee wala bu jekkoo rek dëgg rafet ndeke Quraysh seen ngemb bàyyiwuñu ko woon am nañu gàddaayoon yaakaar ne ñee tekki nañ seen ngemb ñu dellu si waaye ndeke lor ga ma nga ca màkk ba tey Quraysh ñu ngay te toog nañ fa ñetti weer ñooñu booba lañ ñëwaat dellusi si ci waxtu woowu exactement ci waxtu woowu bi zaati bi dabt Quraysh mu ngi gën a sedd li ngembam euh, sama jàmm bi Moxtaar Seck nee na ngembal saay-saay mu ne euh, du tas borom da koy yolomal rek mu ne bu jekk dee wala bu jekkoo rek dëgëra nga ndeke Quraysh seen ngemb bàyyiwuñu ko woon am nañu gàddaayoon yaakaar ne ñee tekki nañ seen ngemb ñu dellu si waaye ndeke lor ga ma nga ca màkk ba tey Quraysh ñu ngay continuer di lor julit ñi ah ñu ngay continuer di leen gën a dëngee ngay continuer def ak ñoom li nga xam ne mooy unf muy violence muy ak li nga xam ne mooy fandañoog doole mu ne unf boobu nag bàyyiwuñu ko dem nañ nag ba léegi Quraysh nee nañu pexe mu ne def nañ ko ngir lor yonent bi ak ñi ak moom mënuñ ci dara waaye léegi ñun ñëpp nañuy juboo ci signé benn pacte pour ne ku gis ab jullit rek dalal ci kawam walla nga lor ko loo man ba mu méttee ci ñenn ñi nag am na ñoo xam ne xëy na muñ gi mënuñu ko woon wala amuñu daal kàttan waaye ñi dëgër ñi dañoo bañ a gàddaay toog rek di defanteeg ñoom ku mel ni Omar ibn al-Khattab Ali ibn Abi Talib Hamza ibn Abdul Muttalib waaye mu ne leen ndaxam Habashaan fa kum neex nga demaat fa ku fa dem de duñ la tooñ te képp ku lay tooñ it kenn du ko dimbale ca tooñ ya loola mooy atam juróom-ñaareel ca yónneeku yónent gi maanaam 618 gannaaw bu ñële gàddaayee ba mu fiixaat ñu dellusi si maanaam gannaaw ñaari at daal ñeneen gàddaayaat nañ googu yoon nag ña gàddaay mën nañ juróom-ñett fukk ñett ci ay góor ak fukki jigéen ak juróom-ñett danaa ci tudd ay tur jaafar ibn abi bokkoon na ca gàddaay gi bokkoon na ca bokk na ca ñu njëkk a ak soxnaam sa asma bintu umays bokk na ca usman ibn affan bokk na ca ak jabaram roqiyatu bintu muhammad sallallahu alayhi wa sallam zubayru ibn al awam ca Ummu Habibata te turam mooy Ramlatu bintu Abi Sufyaan bokkoon na ci nag ne ah ñun kat bu ñu seetaanee lii suñ mbir yàqu ndax googu yoon kat ña gàddaay dem làqu ji dañoo bari lool ndax bare sax dañ laa fukki nit ak nangam laak yooyu waaye léegi nag juróom-ñett fukk. ak ñett ah juróom-ñett ñee juróom-ñeen fukk sax wala téeméer ndax bu fekkee ne juróom-ñett fukk ak ñett yi ay góor ay góor lañ ah, bu fekkee ne fukk yi ak juróom-ñett ay jigéen lañ xam nga ne dal nañuy bari ñu ne léegi nag nan la ñuy def ñu ne léegi daal ni ñuy def moo di ne nañu yónnee euh, benn délégation mu dem dabi leen ndax mu wëññi leen ndax Quraysh gis na ne ñi gàddaay ah mu ngi mel ni am nañ jàmm ca Habasha ba toog nañu naka noonu seen saxuwaay ci Habasha neex na seen toog ci Éthiopie jekk na ñi daal métti na Quraysh mu ne bu yàggee suñ nit ñëpp a dem. ñu daal di yónnee ca Najashi buuru Habasha muy buuru Éthiopie ñu yóbbul ko nag ay cadeau yoo xam ne bari la jox ko benn délégation boo xam ne Abdullahi Ibn Abi Rabiata moo ko jiite woon ba ñu àggee ñu ne ko daal ñu lay Quraysh ñoo ñu yónni dañoo wax ne suñuy nit ñoo daw ñëw làqu si fii. comme dañu làqu si suñuy nit la nag ñu bëggoon ngeen del nga delloo ñu leen nga jox ñu leen rek ñu delloo leen bu ñu waxee ba sottal rek na jaasi dal di ree euh, ne ma ana fan nga mën a gisee fan nga mas a gisee te yéen sax ñii nga xam ne mën nañu juróom ñeent fukk euh, wala téeméer bu manqué tuuti yéen ngeen nekk délégation bu ndaw bu ñu ba mu waxee ne jox naa leen ñii da ngeen leen mën a yóbboo mën nañu xeex ak sax ci yoonu rey leen xanaa li ngeen bëgg daal ma wax leen ne ñoom ñoom duñ fi nekk ci gis nga wax ma loolu mën nga ci jànge lu bari ci luwaat diplomatie laaji mooy daw làqu nit am na droit ñi toppatoo droit de l'homme sax ñoo koy wax waaye fekk lislaam moo leen ci jiitu nit kii am na xàq ci daw làqu fenn ndax mu ndaw nit nag bu làqoo fenn yow mi ko làq amoo droit ci làqi ko waaye keneen ku koy dabit amul droit ci làqi ko fa nit en tant que nit xam naa droit de l'homme ñu ngi may déglu waaye ñoom it daanaka ñu sàggan lañ ndax ay mag ñoo nekk ca kanam rek di ko doxalee nu leen neex waaye nekkul moom it véritable droit de l'homme su fekkoon véritable droit de l'homme la nit fu mu làqu sañ na ko waaye kenn du ko fa làqi dañ ko fay bay ak lu mu mën a def lu mu rëy rëy ku xas daw ba làqu daal dañ koy bay yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na képp ku làqu ci yow nga bañ ko làq boye boo nga xaar daje ak yàlla ëllëg wala mu ne ku làquti ci yow nga bañ koo làq yowmal qiyaam bu ñuy naan kaw sara doon naa nag moom dégg kon nag ku làqooti ci yow moo xam dafa jóge cim réew ñëw moo xam dafa jóge ci dëkk ñëw moo xam dafa jóge ci diine ñëw moo xam dafa jóge ci xeet ñëw na nga ko làqate bu ko làqi keneen ku ko bëgg a làqi sax war na laa jaral yow sa bakkan loolu la Najaasi def ba ñuy dawee làqu foofale am ñu leen dab si ne jox ma leen dafa ree rekk dal di ne yaakaar nga ne nit dana jaaxle ci boppam ba ñëw làqu ci man ngir yàlla ma di ko làqi di leen ko jox loolu mënul nekk Najaasi dal di bañ bañ bu baax a baax ne leen su fekkee nag seen addiya yi ngeen indi ak cadeau yi moo tax yóbbu leen man may buuru fii yëpp ci Afrique Najaasi bokkoon na ci buur yi nga xam ne daanaka ñeenti buur yi naan moomoon nañu àddina yëpp wala seen gox yëpp ci la bokkoon ilifoon na Afrique googu yëpp ci penku ba mu sori ji ba nga xamee ne Najaasi wax na loolu delloo leen ah, daal di xam ne léegi dëgg-dëgg mbir mi nekk ak ñii dañoo nekk ci diine di gëm yàlla te lool la waa waa Quraysh ak waa Makka di bañ mu bañ nag ci la amee nag conviction moom ci la am ak doylu mu doy ko nag diine lislaam ji ndax daf leen a posé ay question yu bare bari ñu tontu ko ci moo xam ne kon kii yàlla ko yónni booba la Najaasi tàmbalee gëm yónnee ku yónnent bi alayhi salaatu wassalaam nii la bàyyee jullit ñooñu le ñu sax ci Éthiopie yi ca Abacha foofu lañ nekk ba lislaam tasaaroo am doole am na ci ñoo xam ne Éthiopie lañ jógee rek dal di jëm Madina ñu dégg ne yonent bi gàddaay na ma nga foofule ñu daal di ñibbisi Madina jógee Abacha mubasharatan radiyallahu anhum jamiian mbokk yi ñuy déglu tey déglu rajo Walfadjri FM 99 kàddu gi di bàyyi ko fii ci Sacré-Cœur ci Ndakaaru Oustaz Assane Diouf ci machine bi Moustapha Gueye ci waxukaay bi noo ngi wéy ak ci xayaatu sayidina Muhammad wa siiratu ñu ngi ñëw ak ci Omar ibn al-Khattab nan la duggee ci diine moom it dañ ko koy beral ndax dafa am solo ndax dafa am luñ ci mën a jàngee Ibnu Hisham nettali na ne ne Omar ibn al-Khattab bi nga xamee ne dégg na ne Fatimata bintul Xattaab ab jigéenam tuub na ki nga xam ne mooy jëkkëram mu Saïd ibnu Zeydi ne tuub na waaye ndeke dañ ko ko doon nëbb ah, ndax ragal Omar rek ni mu dëgëre waxoon naa la démb ne le ibnu Abdullah ñu koy tuddee na xaam moom ma ngi bokk ci Bani Maxsum ci giiru Omar la bokk ci banu adiyin la bokk ci eh, bi giiru Omar Abu Jahl mu bokk ci bani Maxsum mu ngi bokk ci banu adi eh, Naxaam nag moomu nga xam ne ñu ngi bokk ci bani adi ibnu mu ngi bokk ci banu adi ibnu Kaab ñoom dañoo tuub ba ñu duggee ci diini nag dañ ko doon nëbbu Omar ndax ragal ko rek. xabaab ibnul ars mooy tëgg bi ma la waxoon léegi ci ginnaaw ma daan tëgg sayaaxal muy tëgg yu wurus ah bés bu nekk dana dem kër Fatimata bintul Xattaab ak jëkkëram muy Saïd ibnu Zeydin di leen jàngal alquran benn bés Omar ibnul Xattaab dafa génn gàddu jaaseem jaar ci digg mag buy dox dangay ngay dégg tëgin yi muy tëng tëng yi nan ting ting di ñëw ponkal la woon waaye ku ñeme. booba ñooy mu ndekkee moo ba bu Omar yonent bi alayhi salaatu lay wër nee na ba ko gisee rey ko ni ñu noppalu ci moom am ku ne ko bi day ma nga ca Safa ca kam kër Arqam ibnu Abil Arqam ma nga fa toog ak lu war a mat fukk ci ay julit ay góor a ngi cekki jigéen keroog nag ñu fa toogoon Hamzatu ibnu Abdul Muttalib ci la bokkoon mbokk yi danañu dellu si ci kanam tuuti leeralal leen islaamu Omar ibn al-Khattab incha allah amaan na it ñu jëlee ci loo xam ne mën nañ ko ca jànge kon ca kanam tuuti ñu dellu si. xadiisu sabaax maa dayfi xadiisun yawmi ma'a al-ulamaa wal-musaqqafiin xawla al-islaam wa mawaadi'i as-saa'a. waxtaanu suba teel muy dalal semaine bu nekk kenn ci boroom xam-xam yi ñuy waxtaanee lislaam ak xew-xewu jamono. alhamdulilah xaqa xamdi. wasalaatu wasalaamu ala xayri xalqi. Muhammad ibn Abdillahi sallallahu alayhi wa sallam alladi kaanat kaanat siiratuhu siiratu batalin kaanat siiratuhu siiratu batalin aziim wa mucaamalatuhu maca annaas mucaamala xasana wa kaanat mawaaqifuhu mawaaqifan shariifa wa kaanat nubuwatuhu wa risaalatuhu aaxira risaalatin wa kaan shariatuhu qad nasaxat jamia sharaaic wa hiya laa tunsaxu abadan ila yowm alqiyama idan rajulun xaalidun maa risalatin xaalida wa shariatin xaalida sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñuy déglu gannaaw bu ñu leen ñaanalee jàmm di sàkku ngeen ñaanal ñu jàmm sama mbokk sàmmkat yi mooy ñoo ñu nekk ci daral ji di jaay xar yi keroog dama ci tase kenn mu ne ma yow daal ñu nekk da nga leen ñaanal ba mu des ñun waa daral ma ne ko danga nga déggul nag waaye comme ne naa mbooleem ñi xëy di kër kër yi loola labal na ñëpp nag xanaa xanaa ci teqale gi rek kon ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di sàkk ñoom it ñu ñuy ñaanal jàmm Omar ibn al ba mu déggee ne jigéenam ba Fatimata bintul Xattaab tuub na jëkkëram Saïd ibnu Zeydin tuub na waaye dañ ko koy nëbb nag ca la Omar génn nag ne naka noonu Nuaymi ibnu Abdullahi Naxaam tuub na ñoom ñëpp ñu ngi bokk ci bani Adi ibnu Kaab di mbokki Omar moom it day nëbb tuubam Xabaab ibnul Arsa nag tuuban na bu yàgg waaye da daan dem kër jigéeni Omar di leen jàngalal Qur'an benn bés Omar ibnul Xataab gàddu jaasi ji rek gis nga njoolaayam baag ponkolaay baag njàmbaar gaag jaasim ju gudd ja naaj waa ngi jër muy jaar ci biir màkk nan këng këng ana la jëm nee naay dafay wër Muhammad bu ko gisee rey ko ñépp noppalu rekk mu jeex mu gàddu jaasi ji rek. fekk yonent baa ngi dajee ak lu mat ñeent fukki saaba ay góor ki jigéen ci kër kër Arqam ibnu Abil Arqam waaye fekk na keroog Hamzatu ibnu Abdul Muttalib ma nga ca Aboubacar ibnu Sadiq ma nga ca Ali ibnu Abi Talib ma nga ca ak yeneen saxaaba ñi nga xam ne jotaguñu woon a gàddaay jëm Xabashi yëpp ñu ngi fa toog Nuaymu nag ibnu Abdallah Naxaam mu dajeeg Omar ma ngay waaxu te ñoo bokk xeet mu ne hee ayna turidu yaa Omar Omar foo jëmati mu ne ko uridu muhammadan hada saabi alladi farraqa amra quraysh wa safa ahlaamaha wa aaba diinaha wa sabba alihataha fa aqtulu mu ne Omar foo jëm mu ne maa ngi dem seeti Muhammad nit ku dëng kii nga xam ne teqale na mbiram Quraysh dofloo na seen xel yi ayibal na seen diini ŋàññe na seen yàlla ya su ma demee ba gis ko rek ma rey ko ñëpp nopplu ci moom Nuaymu ne ko wallahi laqad laqad garratka nafsuka yaa Omar mu ne Omar waru nga atara bani abdi manaaf taarikika tamshi ala al ard wa qad qatalta muhammadan Omar man maa bokk ci sa xeet ma lay wax dëgg waaye waru nga de ndax yaakaar nga ne banu Abdul Manaaf da nga rey Muhammad di dox ci kaw Makka ñu bàyyi la fi ndax yaakaar nga ko Omar su fekkee am na looy réglé dellul ci sa kër nga jubbanti la fa dëng mu ne ko lana fa dëng mu ne yow foo nekkoon. sa tan mi mooy sa jëkkëri caay jigéen bi sa tan moomu di sa doomu bay tax Saïd ibnu Zayd ibnu Amr ak sa jigéen bi nga bokkal ndey ak baay muy Fatimata bintul Xattaab wallaahi dugg nañ ci dini Muhammad ba topp ko yow kay boo amee looy réglé demal sa kër nga rey la nooy reyee Muhammad foofu nag Ibnu Hishaam nee na Omar dal di jësub taxaw ba yàgg ma ne walbit dal di wàññeeku nee na ma nga jëm ca kër jigéenam ba ak tanam ma bu demee defanteeg ñoom Omar di waaxu rek xabaab ibnu Arsa nga toog ak ñoom di leen jàngal alquraanil karim di leen sax ñu ngi yore ay kayiti alquraan ñu ngi yore benn téere benn kayit woo xam ne ñu ngi ci bind soratu Taaha ba kanam foofu nag Omar di kënkën yi ñëw rek ba yàgg ñu naan kuy ñëw kan la xabaab daw rekk daldi xool ci ceeñeeri bunt bi seen Omar ma nga gàddu jaasi ji di ñëw rekk xabaab daw ñëw ne Fatima sa càmmiñ ngi ñëw Omar a ngay ñëw ma nga gàddu jaasi xabaab ndeysaan comme amul doole te fii du këram ah mu daal di dugg ca pantre ba rek tëj ko nag ne fa teg ah ndax dañoo dégg nag teg yi nii dëgg yu Omar yi ne muy ñëwee xabaar moom làqatu ca pantre ba rek di leen déglu nag Fatimata daal di jël téere bi mu doon jàng daal di def ko ci suuf ab ab luppam teg ko ci rek toog Omar nag bi mu leen jegee déggoon na xabaab di jàng moo tax bi Omar ak see ne waaw. mooy yéen mu ni gu ma dégg ci seen néeg bi lan la ñu ne ko déggoo dara mu ne ah kay am na lu ma dégg te man sax dañ ma wax ne ma yéen topp ngeen Muhammad ci diineem ñu jéem a wax rek nga xam ne mooy Saïd ibnu Zaydin mu di nga xam ne mooy goro bi wala mooy tan mi ndax mooy jëkkëri jigéen bi Omar dal ko song rek poñe ko poñe bu metti nag foofu Faatimata jabar ji daal di ne bëreet nag jigéen Omar bëgg a teqale ak dox ci diggante bi Omar daal di ko dóor mu daal di xaañu deret jigéen foofu na ndaw si nag yaram bi tàng jigéen bi ne ko euh, naam ñun ñoo tey tuub nañu gëm nañ yàlla ak yeneen taam lu la neex nga def ko bu la neexee nga rey ñu ba Omar gisee nag. ab jigéenam xaañu na deret jaa ngi génn Omar daal taxaw nag rus dal di rëccu nag la mu defoon mu jàjju nag bàyyi leen dal di wax jigéenam bi ne jox ma téere bi nga doon jàng bi ma déggoon léegi ngeen di ko jàng ndax Omar mënoon na liir arab mën na jàng ma xool lii Muhammad indi lan la Omar bindkat la woon ku xamoon jàng la. Euh, ba mu waxee loolu jigéenam bi ne ko ñun daal dañu la cee wóoluwul ndax mën ngaa jël téere bi xotti ko wala doo ko delloosi Omar ne la bu ci tiit bu ci ragal danaa la ko delloosi mu daal di ne ko ah, géñal mu géñ ci yàlla Qurayshi yépp ne dana ko delloosi waaye fokk mu jàng ko ba pare ba mu waxee loolu nag. ñi yaakaar ne daal alquran ni mu sellee Omar di arab dégg arab su ko liiree yaakaar nañ sax loola mën na koo delloo gannaaw mu ne ko ah, yow sama càmmiñ bàyyil téere bi ndax yow sobe nga ndax bokkaale kat nga te téere bi ku laabut du ko sol du ko laal Omar ne ko xaaral mu dugg ci wanag wi daal di sangu ñëw ñu jox ko téere bi nag Omar a ngi nii téye na kayit wi mu ngi jàng lan moo ca nekk ak lan la om Omar jàng taaha ma anzalna alayka alqur'ana li tashqa illa tadkiratan liman yaxsha tanzilan mimman xalaqa al arda wassamawati al ula arrahmanu ala al arshi istawa lahu ma fi alsamawati wa ma fi al ard wa ma baynahuma wa ma tahta althara wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa allahu la ilaha illa huwa lahu al asmaul husna Omar de lii la jàng ci téere ba mu jàngee ba agsi ci allahu la ilaha illa huwa lahu al asmaul husna Omar dal di wax gannaaw bu mu ko jàngee ne ma ahsana hada al kalaam wa akrama est-ce que waaye ji wax moo rafet waaye itam moo tedd ba xabaab déggee wax jooju mu it mu yaakaar ne ah ki kat xel maa ngi dellu si mu daal di ne këccit pantere ba mu làqatoon génn ne ko yaa Umar wallahi gën naa ci yàlla ne maa ngi yaakaar maa ngi yaakaar fekk yow la yàlla jagleel woote yonent bi ma dégg muy woote sànq man de déggoon naa ko démb muy wax naan yàlla yan na nga dëgërale lislaam ci kenn ci ñaari Umar yi muy abul xakam amru ibnu hisham wala omar ibnu alxataab maa ngi am yaakaar ne ñaari omar yooyu ci lislaam ji dëgëree ci moom yow lay doon dal dine ko allah allah ya omar ragalal yàlla ragalal yàlla omar ne ko xabaab tegtal ma fi yonent bi nekk ma dem ca moom léegi dugg ci diine xabaab ne ko loolu de yomb na ma soo demee ba safa kër kooku ñu naan arqam ibnu abil arqam mu nekk ca weti safa ca kaw foofa la nekk mu ngi fa nekk am mbooloo ci saxaaba yi moo xam ne jege na ñeent fukki nit ay góor ak i Omar dal génn nag waa këram yaakaar léegi mu daldi di gàdduwaat jaasi ja jaaraat ci yoon wa Omar boy na mu ngi jëm ci yonent bi bu mu agsee dal di fëgg bunt bi rek ñu ne koo kan la koo kan la ñu dégg baat bi benn waay dal di dem yuurlu ci xarxari bunt bi dal di ne omarun wallahi mutawashihan sayfahu ah omar a ñëw ya rasulallah hada omar ibn alxataab mutawashihan sayfa ñëpp dal tiit ñëpp dal di afale mu ne wallahi omar la ma nga gàddu jaasi ñëw mbooloo ma ne rëg rëg rëg rëg ñii dañoo tiit ñii dañoo ragal ñii dañuy préparer seen bopp di waaj ndax bu ay ñëwee rek ñu dal ci kaw foofu nag fi la Hamza ibn mu talib fi mu soowoon woon mu daal di ne bëreet ne waaw lii lu mu doon ñu ne Omar ibn al mooy ñëw gaddu jaas yi nga naan lii lu mu doon mu ne waaw buy Omar nag dama ne ku nekk na dellu ca la mu nekkoon. kuy jàng jàngal kuy déglu déglul kuy julli jullil kuy wax waxal ngeen ba maag Omar sama morom la xamante ne bu ñëwee bu fekkee aw ay la jàmm la bëgg ñu jox ko jàmm ba mu doy bu bëggee aw ay ma rey ko ak jaaseem jëmu gàddu lay nangu rey ko rek ñëpp nappalu foofu nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ubbi ko mu ñëw waaje ubbi yonent bi ne bërit jëm Omar dajeeg moom ci bunte néeg bi yéen bi daal di mel ni ko poñewaale Omar mu ngi koy jës bu nut xam nga yàlla kenn du ci dem te xëccuñ la buñ la xëccul doo dem daf ko poñe rek dal di ko fiq fiq goo xam ne gu metti la dal di ne maa jaa bika ya ibnul xataab lan nga fiy def yow Omar ibnul xataab fa wallahi ma ara an tantahiya xatta yanzil allahu bika qaariatan yow doomi xattaab lan nga fiy def géej naa ci yàlla ne naroo daytalu dellu gannaaw bay kéefër gi kanaa danga nar a ba mbugal wàcc ci yow omar naka yaa rasulallah jiitu li uumina bika wa bi rasulihi jiitu li uumina billahi wa bi rasulihi damaa ñëw ngir nar a gëm yàlla ak ab yonentaam wa bi ma jaa min li nga indi jëlee fa yàlla dama koy gëm si ñu dégg yonent bi ne allahu akbar allahu akbar ñu nekkoon ci bitti yëpp daal di xam ne kon Omar tuub na ndax kàbbar yonent boobu du caaxaan ñu daal di xam ne a Omar qad aslama saaba yi teqalikoo nag ñii jëm ni lii ñii jëm nii ñoom ñëpp nag seen teraangay bakkan ñoom ñëpp a ngi ñu nga ñeetu ñee seen bopp ndax ku tul ni Omar dugg na ci lislaam kon Omar ibn al-Khattab boo àndeek Hamza ibn Abdul Muttalib ñu di ñaari jàmbaari fakk tëdd yu dëkk ci Quraysh léegi bu ñu duggee ci diine waa lislaam wóor na leen léegi ne ne yonent bi am na ay kaaraange ci ay noonu ci instant boobu nag ci gendeeku boobu ci la Abdullahi ibn Abi Rabiata ak Amru ibn al-As dal waññeeku wàññeeku jóge Habasha ñëw ci Quraysh ba ñu ñëwee nag am nañ échec ndax ñu gàddaayoon dem Habasha ci Éthiopie ñoom lañ dabi woon ñoo dellusi si nañ ak seen échec yooyu jox nañ indiwuñ dara la bëggoon amuñu ko pour delloo si saxaaba yonent bi jëlee ko ca Najashi Najashi wàññi na leen delloo si leen delloo gu ñaaw. ñu bi ñëwati ci Màkka fekk nag Omar ibn al-Khattab tuub na Hamzatu ibn Abdul Muttalib tuub na loolu gën a metti dabi woon nañ ña demoon Najaashi bañ muy musiba ñu ñëw fekk ñaari jàmbaar yi fakk tëdd yi Omar ak Hamzatu yëpp tuub nañ ànd ak Yonent bi alayhi salaam ah kon Quraysh nag sa wàcc na ci ñoom am nañu jàqre gannaaw jàqre léegi nag fokk ñu defati ay pexe. yoo xam ne jullit ñi war nañ ci mën a loro ba néew ca doole ah, Abdullah ibn Mas'ud nii demoon nañ ba mënatuñoo julli ci Kaaba ga dañ ñu ko daan aayee ñemewuñ ko sax boo Omar ibn al-Khattab nag lañu tàmbali di julli ca Kaaba ga xeex nañu ak Quraysh rëkkanteeg ñoom ba Bilaal nodd ci Kaaba ga ñeneen nañ ba bi Bilaal njëkkee na ci kaaba gi am na ay jigéen biir yu ëmboon sax dañoo imbi dañoo ëmb ngir tiit benn waay ne suñu maam ya woon bu yàgg day texe nañ ñoom ñi nga xam ne baaxaañ bu ñuul bii ba mu yuuxu ci seen kaw ci kaaba gi nodd fekkewuñ ko ñoom dee nañ wuute nañ loolu ah, kon benn xew-xew a ngoog boo xam ne bu rëy la muy tuuba Omar ibn al Xattaab ba tax julli gi génn ci bitti woote bi génn ci bitti ñëpp dem ci Kaaba ga di fa julli di fa nodd kon jébbalu ko Omar ibn al-Khattab dugg ci diine ndimbal la kattan la ñaa lislaam ak julli gi naam wa hakada ayuha almuminuun aslama Hamzatu wa Omar ibn al-Khattab wa haajara baadu saxaaba ila alxabasha falam taflax quraysh fi muxaawalatihi bi iaadatihim فأخذ الإسلام يفشو في القبائل فدعا القريش إلى اجتماع عام طارئ فتعاقدوا فيه على بني هاشم وبني مطلب وكتبوا في كتاب في كتاب هذا نفسه عمر بن الخطاب دقنا الدين دم دم لا قريش حمزة بن عبد المطلب دقنا الدين الإسلام لولو دم دم لا قريش téeméeri nit gàddaay nañ làqu ji xabasa dem nañ dabileen Najaasi ne du leen ko jox loolu aw métit la ah ñu dellusi nag ne léegi ban pexe la ñuy def lislaam ngi gën a tasaarookat ci xeet yi ak ci giir yi nan la ñuy fexee nag ba bës ko ba du génn waaye gis nga xam nga luy waral révolution lu koy indi révolution mooy jeqeeku jeqeeku lu ni léegi ban pexe la ñuy def lislaam ngi gën a tasaaroo kat ci xeet yi ak ci giir yi nan la ñuy fexee nag ba bés ko ba du génn waaye gis nga xam nga luy waral révolution lu koy indi révolution mooy jeqeeku jeqeeku lu koy indi mooy jël mbir bëggoon a sunal dëpp ko boo ko dëppee rek mu kalaat arab yi dañuy wax naan shiddatu daghti yu addi ila al infijar xalaat bu ñëw arab day wax ne muxaarabatul afkaar charru intisaami ab xalaat ab idée boo koy xeex xeex ba koy xeex yow yaa ko yow yaa ko tasaare ndax boo koy xeex ku dégg ne lu lan la dégg ko woon ñu waxal ko ko idée ba nag di àgg foofu bépp xalaat bépp idéologie buy am bayit rek waxtu woo koy xeex yaa koy dimbali lépp loo xam ne da koy dëpp lépp loo dëpp parce que baax day toj day éclaté loolu mooy indi révolution kon révolution dara indiwu ko lu may bëgg dëpp ay xel bëgg dëpp ay xalaat ni ñi dañ leen rek ñu wax mel ni mag mas na wax fii ci Sénégal rahmatullah alayhi magum politique la woon mu mag mosoon naa wax nii doo mën a déggoog sénégalais yi fekk waxuñu ab sénégalais doo mën a déggoog moom fekk waxut da koy bàyyi mu wax ba giix buy saaga saaga buy xas xas bu fa jógee ne la ma ko wax su boobaa nag ñun jeex na ci bu ko xasee wax rek giif na moo tax ay sénégalais boo leen di yëlif ngay bañ wax rek fekk waxuñu doo am jàmm da ngay bàyyi ku nekk li mu ëmboon mu imbi ko ku lim fasoon mu wax ko yow daa boo amee xel daa ci doxee dal xam wan yoon ngay jaar xam li ngay wattandiku xam li ngay def mais bàyyi rek ñu wax ab sénégalais danga koy jox liberté mu wax lépp lim bëgg wax nga xam ci luñ lay critiquer ak fan ngay jadd jaar nga xam ci luñ lay ŋàññee nan nga koy teggee te moom nag bu xasee am liberté ba xas la saaga wax li mu wax ba pare jeex na ci moom léegi am léegi man mën ngeen a jubóo loolu moo tax am mag waxoon na ko nee na on ne peut pas d'accord avec les Sénégalais quand ils ne parlent pas il faut les laisser parler su ñu waxee ba wuutee li nekkoon ci seen biir rek jeex na bu fi jógee xel li ma ko wax tey li ma ko yëkk journal ba la ma ci bind rajo ba la ma ci wax tey li ma ko yëkk ci mbooloo ma dal nay jeex ci moom su ko defee nga wéy nag yow li nga bëgg def yëpp boo bëggee nga def ko Quraysh nag ñeneen dañ ne woon nag ñoom duñ duñ ko fa waxee dañ ne woon woote bi du fi génnee ah éclaté na woote bi génn na ci la ñu dogoon ak binde seen téere dog ak bokk gi nga xam ne ci lay jeexalee waxtaan wi ah, dañoo waxoon nii ñu bind ala an laa yankixu ilayhim wala yunkixuhum wala yabicuhum cheyan wala yabtacuuna minhum summa allaqu saxifata fi jawfi lkaaba tawkidan ala anfusihim seen téereb dog ak bokk gi mooy banu Hachim daal ak ñi topp yonent bi bu kenn denc ci ñoom jabar bu leen kenn ay jabar suñ jaayee bu kenn jënd bu ñuy jënd bu leen bu leen kenn jaay téere boobu Quraysh yëpp signé ko taf ko ci Kaaba ga mooy téere dog ak bokk gi waaye téere dog ak bokk boobu nga xam ne ber nañ Banu Hashim loolu xam naa moom la ñuy tuddee ci jamono ji embargo dañoo embargo woon yeneen tibaan ñëpp ñu ànd ak moom ak xeetam Banu Hashim yëpp nag ba dañuy xiif sax duñu am lu ñuy lekk dañuy bëgg jënd lu ñu am lu ñuy jënd bëgg naan ñu am lu ñu naan mbokk yi ëllëg incha allahu ci talaata ji dina ñu dellu ci noonu Quraysh yi defoon embargo Banu Hashim ak jullit ñi su ko defee ñu wéy ci la vie et l'œuvre de Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi gërëm Oustaz Assane Diouf ci machine bi di leen gërëm ci déglu gi Stéphane Diop ma kon ci waxukaay bi yéen yàlla def ci ñun jóg ak toog def ko ci yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu